Euh, mais euh, Sénégal la am ay origine mu ngi tudd Nafissatou Thiam. waaw elle est la nouvelle star euh, du sport belge. actuellement moom ah. Nafissatou Thiam moom mi nga xamante ni moo nekk championne olympique en heptathlon. Mhm. moom Nafissatou Thiam actuellement mooy gis moo nekk ki nga xamante ni moom lañ gën a respecté fële ca ca ca Belgique. actuellement mhm. ci ci sportif maanaam tàggat yaram bi muy bi muy yëngatu. Mhm. Jeux olympiques la dem jox Belgique médaille d'or ci heptathlon ay maanaam ay épreuves yu bala ñu ñuy yu ñuy regroupé. ay épreuves yu bare yu ñu regroupé yoo xamante ni kii nga xamante ni moom dafa waaju waajuram bu góor sénégalais la yaayam di belge moom Nafissatou Thiam moom gis nga ko bi ñu bi ñu bi mu nekkee championne olympique euh, ci week bi sénégalais yëpp dañuy wane seen fierté comme ni nga koy waxee rek di wane nii euh, kii ci ñun la bokk certes dafay dafa mi ngi représenté belge parce que waaju benn waajuram bi maanaam waajuram bu jigéen moom belge la euh, moom papam di sénégalais waaw Nafissatou Thiam ñëpp di wane seen fierté <laughs> après nous pour quand on en parle euh, certaines personnes me diront ben écoute on s'en fout hey, eh. mais ñoom euh, quand c'est bon euh, belge belge ngay dégg wala seen dëkk dëkk dëkk ngay dégg mais quand c'est mauvais euh, euh, origine waaw c'est en belge d'origine sénégalaise. Pape Cheikh li nga li nga wax dafa am solo. parce que ñun ñi ñun ñuy suivre sport bi. dañuy daj ci genre stigmatisation laa ko mën a waxee. ci ci côté boobu. par exemple Paul Pogba bu def mm-hmm. ci ci euro bi. gis mm-hmm. naa dégg commentateur français bi voilà français bi. mu def erreur mu def erreur. mu def erreur. Paul Pogba rek ñu préciser. Euh, le français d'origine guinéenne mm-hmm. cest bu defee lu baax comme ni koy wax bu defee lu baax ñu ne le français la ñuy wax comme ça c'est parfois dañuy dañuy da ngay da doo mën a comprendre loolu quoi cest mm-hmm. comme ni ko partie wax ne bu baaxee rek dañuy ñoom dañ koy jël def ko ci bi gaaw xole ko ci ne ni moom mi nga voilà c'est elle mm-hmm. moom mi nga xamante ni actuellement mooy mooy mooy mooy ci ci Belgique ci wàllu sport tàggat yaram gis ne nii ñoom ñëpp dañuy wax euh, la Belge la ñu la ah, Belge la dafay ah. wane rek ne ñoom yi en fait dañuy jël euh, noir africain yi comme marque en fait mm-hmm. waaw tant que la marque est productive et qu'elle euh, voilà make money voilà que quand ça les arrange associer mm-hmm. leur nationalité à ça mais dès lors qu'il y a un couac ça retourne euh, ah. voilà non, à performance yi gis nga euh, ñoom kase an yi nga xamante ne ñi daw actuellement pour euh, pour France ñoom nga xam ne dañoo changé nationalité dem di daw pour France parce que c'est parce que arrangé na leen nekk na ñoo xamante ni waaw certes mën nañ leen jox moyens yi nga xam moom la soxla pour ñu woo leen seen biir ñu daw mais fi leen bu ñu defee ay jaloore dañuy préciser que ni ñoom mm. français rek point mais bu fekkee vraiment dañoo am yenn euh, tolof tolof rek nga gis ñu préciser seen origine loolu moo ñuy à fois moo tax ñuy wane ñun tamit suñu fierté ñii ci ñun la bokk di lancé tamit appel suñu autorités yi ñuy xool na la ñuy def bay indiwaat sénégalais yi ñi nga nañu indil ay médailles di leen mhm. jox les moyens dafa am mhm. solo di leen jox les moyens parce que ñoom bu ñu gisee ku important ci dëkk mën nañ la jaral ba jël nga changé nationalité sa euh, ko waxee léegi nii waaw nañu xëcc na fi sax tu caam quand même ah voilà jox ko nationalité sénégalaise ah. c'est c'est possible ah. a adduna bi rien n'est rien n'est impossible jox les moyens nécessaires rien impossible ah donc moom ci ban discipline la ci daw bi heptathlon waaw. non non du daw rek heptathlon. moom ah. c'est-à-dire da daw saut en hauteur def ay ay lancer perche. Mhm. mën nañu moom sax ñu ngi koy xaar ci saut en bi. ba xam mhm. ci bi fas yéene am euh, jeudi bi. Mhm. ba xam na dina ci bokkam déet. mais ba léegi moom joxegul euh, joxegul avion. voilà mais moom li mu wax euh, déclaration bi wax mu ne fierté la contentement la am ci victoire ci médaille bi. wante li ko li ko gën a soxal mooy nee bi muy yeewu. bi muy war a def final bi muy war a def compétition bi. mën a gagner. j'ai vu une déclaration où elle disait qu'elle était venue au JO mais pas pour avoir une médaille. c'était juste pour participer pour participer. bon ben na ko maamam ñaanal parce que j'ai vu aussi des images yoo xamante ni elle était venue au Sénégal ñëw Sénégal day ñëw Sénégal elle vient souvent elle vient souvent vous montrer photo ak euh, ak maam ji. ah am na waaw mi ngi si dëkk bi yow miin nga Aminata de. parce que papaam papaam papaam papaam waa fii de xaw ma nag caamu fan la dinaa naa ci gëstu. waaw gëstu il ma xool ndax tooroodo la wala ñeeño la. Mhm. ah bu ne bu ne bu ne bu ne mën na ne. mais mais nuru na ma ñeeño de. waaw yàqu ba dafa ñeeño we na. waaw yàqu ni mu rafetee nii. waaw ñeeño diplômé ñeeño ñeeño we na non bakkan bi kay xam naa deretu tubaab bi deretu belge bi la parce que sa mère elle est belge mais en tout cas nous nous sommes nous nous sommes fiers d'elle on nous dit que waa Diourbel la voilà moom maama maam jàngo ma nga toog ci siisu plastique ba nag <laughs> c'est vrai ah avec 22 ans elle a 22 ans 22 ans voilà c'est que quand les arrange ñoom léegi ñun on a pris la décision ku ci amati origine Sénégal boo defee lu baax tam ñu xëccoo la gis nga si su plastique bi ku ko xool xam ni si su Sénégal waaw <laughs> chaise bu am dans toutes nos maisons <laughs> xam nga xeetu miir yi sama miiru kër yaay la miiram ba nii la medd ak nawet bi te ëtt ba fi di takk xar beeg yooyu noonu donc Nafissatou Thiam écoute doom nday Pape Doudou Thiam bokk nday Pape Doudou moo fi santaan Thiam samtaat Thiam ci télé bi Pape Samba Thiam. waaw ma fier nee na kontaan na xam na na fi te xa ko dégg nga. <laughs> <laughs> y'a aussi y'a aussi keneen koo xamante ni euh, il nous a fait plaisir bijou euh, muy euh, Omar Sy. alors Pape Cheikh Omar.